قالوا سبيء لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لخفي نهجم الجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر Daouda Wilane la eh, bokk ci collège ingénieur yi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak Touba Ca ci liggéeyu infrastructure yi ñuy def yépp Euh, ci poste santé yi réalisation yi ci wàllu euh, aménagement ak euh, voirie yi ak lépp lu mën doon ci biir dëkk bi Touba Ca Kanam ku ne xam ne taxawaayam ci wàllu infrastructure ci dëkk bi donc dañoo am benn collège ingénieur boo xam ne ay spécialités yu bëri ñoo ci nekk ñoom ñoo leen di taxaw liggéey bi ñu nekk nag muy bâtiment bi nekk suñu ginnaaw mooy bâtiment bi nga xam ne Touba Ca Kanam da ko jëloon jaayante ko def réalisation bi xam naa damay wax rek ci wàllu technique bi su ko defee sëñ maam Thierno Ndiaye mi nekk suñu ginnaaw xëy na ci wàllu réalisation bi am na yoo xam ne dina ko ci nekk ndax moom moo xam phasage bi ak yooyu hmm. euh, ci wàllu technique bi bâtiment bi euh, bokk na si bâtiment yi nga xam ne moom la ñuy wax majalis muy batiment boo xam ne R plus 3 la rez-de-chaussée plus 3 niveau hmm. euh, ba niveau bu nekk am na salle de classe ñetti salle de classe am benn bureau am ay toilettes ak am dégagement boo xam ne mooy tax circulation bi horizontale Euh, circulation verticale bi aussi am na euh, cage d'escalier boo xam ne dafa àndaale ak box euh, cage d'ascenseur te boo ko boolee lépp ci surface utile bi mu ngi toll ci deux mille deux cent cinquante mètres carrés répartis sur comme ni ma ko waxee sur quatre niveaux. bi ñu koy tàmbali tamit dañoo ñëw fekk lépp lu nga xamante ni moom mooy tënk projet infrastructure rawatina bâtiment nga xam ne mi ngi tàmbali ci phase de conception bi nga xam ne architecte moo koy def. Euh, étude technique yi nga xam ne mi ngi commencé si gros œuvre bi bureau d'étude moo koy def def euh, plan béton armé yi def étude géotechnique bi loolu yëpp dañoo fekk mu am euh, étude yoo xamante ni unité de coordination projet bi bi nga xam ne sëñ Mame Thierno moo ko sëñ Mame Thierno Mbacke mu sëñ Souhaibou Sow moo ko jiite ñoom defoon nañ ko léegi nag Touba Ca Kanam ba mu ñëwee laaj liggéey bi dañoo dajaloo ñu jox ñu plan yooyu ñu saytu plan yi daal di tàmbali liggéey bi léegi nag ñoom si seen supervision la nekk ñu xaatim ak ñoom benn convention boo xam ne mooy wane ne lépp loo xamante ni ñoom définir nañ ko comme norme bu ñu war respecté ci université bi danañ ko respecté donc noonu lañ doxalee tàmbali ko recruter benn entreprise jël benn ingénieur teg ko fi muy saytu entreprise boobu mu nekk ñaari niveau de contrôle benn bi mooy contrôle interne bu ñu bu ñu entreprise bi defarlee ba pare ñu contrôler suñu bopp ba pare nag doo di woo bureau de contrôle bi nga xam ne moom mooy valider pour ñu mën a jàll ci beneen phase bu ñu loolu nag euh, euh, di continuer di kon ba gros œuvre bi jeex gros œuvre bi mooy jëmmi bâtiment bi nga xam ne euh, ciment la béton ak fer ba mu lépp daj ñu doog a tàmbali nag yeneen corps d'état yi mooy carrelage électricité plomberie ak yëpp loo xamante ni bâtiment da koy laaj ba ci euh, euh, électricité bi am courant fort courant faible ba ci caméra de surveillance ak yëpp donc Kanam li muy livré li muy livré bâtiment bu complet la boo xam ne yemul sax si jëmmi bâtiment bi kese mais da koo équipé à 100 li ñuy wax clé en main dëgg dëgg dëgg Touba Ca Kanam def na ko romb na sax clé en main ndax clé en jëmmu bi kese ngay joxe mais romb na euh, clé en main parce que après équipé waat na ko bureau yi li fa war a nekk lépp te xam naa ne dana gunge aussi ci ci ci ci niñ koy kiyee gis nañ ko ba fii ni mu meloon y' a quelques jours bi ñu ñëwee war a def inauguration bi gis ngeen niñ ko setalee nga xam ne daanaka def nañ aménagement bi donc liggéey bu mucc ayib la boo xam ne tegu na ci norme yi mu war a tegu te tamit Touba Ca Kanam xam naa lii daf ciy wane rek ne liggéey infrastructure amul bu ko të ndax ñi ci nekk nga xam ne ñoom ñooy jiite réalisation am nañ expérience bi am nañ rigueur bi waaye tamit si seen ginnaaw tamit am na collège d' ingénieur boo xam ne ñoom ñoo réalisation bi aussi Euh, euh, cinq cent vingt et un la cinq cent vingt et un la te loolu tamit xëj na euh, rigueur buñ ci buñ ci def ak tamit niñ ko saytoo moom moo tax waaye bañ koy démarrer ku ne xamoon na ne ñu ngi ko estimé woon ci ay huit cent millions waaye nag lépp loo xamante nii luñ lu ñu waroon a jëggaani fenn la dañ ko jaay dañ ko jaayante suñu biir ndax bëri na ñoo xam ne tey bu ñu leen doon fay ñi ñuy nekk si wàllu réalisation di leen fay salaire di leen di leen jox leen yenn yi ñuy nekkee yëpp konoon mën na am sax mën na romb loolu waaye nag jaayante moo ci feeñ donc boobu am ci mooy wane ne rek loolu noonu renoncement bu am la si ñi nga xam ne ñoo ko doon ñoo doon taxaw ndax kenn ku ci nekk ku ne xam na ne structure bu mel nii boo ko naree taxawal li muy laaj ci ay conditions ak ni ngay nekkee mais ñoom dañoo jaay seen guddi seen bëccëg ak seen lépp donc def ko ci donc loolu daal mooy si succès bi te di wane ne tamit. waaw disposition yi ci war a jël jël nañ ko ci waaye nag comme dafay bâtiment boo xam ne dafa nekk si benn comme li wax benn entité si biir corps boo xam ne euh, yeneen bâtiment ngi fi Euh, euh, bâtiment bi jëm bâtiment bi boobu lépp loo xamante ni prévoir nañ ko ci wàllu plan nga xam te loolu unité de gestion de projet bi ñoo ko defoon loolu moom Touba Kanam respecté na ko léegi nag tey bis ni ko tey jébbal nañ keg caabi yi bu leen neexee suba comme liggéey sëñ bi ni muy mos si doxee boo xasee jébbale rek li ci def nag moom ñoom ñoo ko yor te ku ne gis na sëñ Amadou Bardé bi ni mu ko waxee ñoom xam nañ usage benn lañ ciy def ñu toll Touba Ca Kanam définir tul salle de classe jàngee loolu seen liggéey la ñoom léegi li nga xam ne moo jëm ci wàllu sécurité nag bu dee sécurité interne bu bâtiment bi jël nañ ko sécurité bi nga xam ne moom la bokk ak nag yeneen bâtiment yi loolu moom incha allah yaakaar naa dinañ ko jël si. waaw xam naa loolu nag moom lu ñuy lu ñuy kii la rek waaw bu ci buñ ci sollicité Touba Ca Kanam ñu. waaw durée travaux bi nag xam naa ne euh, boo koy xool daanaka euh, trois ans mais ci trois ans yi dafa am lu ci xew loo xam ne mooy bi ñuy doog a tàmbali liggéey bi dafa tàmbali rek mbas bi commencé. mu amoon ay jafe-jafe yu bëri ci wàllu dem beeg dikk bi ci wàllu approvisionnement ak yooyu léegi nag moo taxoon nag euh, xëy na mais mënoon nañu ko waaye nag ku gis tamit yi mu fi tàmbale ndaw yi ko ñi ko ñi ko tàmbali ak ni mu teele pare ku ne xam ne ne kon Touba Ça Kanam def na ci Pastef 521 millions moom mooy réalisation bi léegi nag équipement yi nag am na si yoo xam ne sax xëj na bureau yeeg yooyu noonu mën naam sax yeggagul waaye lépp lépp daal lépp loo xam ne lu bâtiment bi laaj dinañ ko ci def incha allah xaalu safiun li kawni lam aqaf ahadan wa ma si lqadari xaalu safihun li السيخ زيدي فخل الخير في الخبر